keep promoting. mag bi yegsi na paf ñu koy ndax Pape Abdou Fall dafa def lu kenn musta def Pape Abdou dafa dem fu kenn musta dem ne dafay sargal koo xamante ni nii moo jël a sargal kooka la ñu ne Mamboy Diawo Mamboy Diawo mu Kolda Mamboy Diawo responsable politique APR mbokk yi Mamboy Diawo moom la ñu jël bis bi mbokk def ko delloo njukkal président Macky Sall mbokk yi Pape def na lu musta am sargal rek a a sargal waaye ñi nga boole la kenn musta boole mbokk jël bu jàmbaaru wrestling académie boole ko ak ki nga xamante mooy Siteu bu tarkindaa bi mbokk yi ñaari la Pape Abdou boole kii nga xamante ni nii daa bëre ba équipe nationale olympique woolu ko ne ko ñu sa xam-xam boole ko ak xale nga xamante kuy moroomam faxas na ci kanamam kookal la ñu ne Siteu tarkindaa bi mbokk yi Pape Abdou lu rëñ ci bis ba mbokk yi dina ci laalaay ak rawaan bu bu xam sa cosaan moo ci daje DMX 2 bu Ramdaan bokk yi ndax yéen ngeen ni Petit Lo bu Rock Énergie ndaanaan bi moom moo fay daje ak Candela bu Bawol mbooloo Bekaay bu Saa Ñambu dina fa laale ak Pape Mama numéro 2 Njaga Saar waaye Njaay Laax mu Lam Saar dina fa daje ak 5 tonnes mi nga xamante moo xëppoo gaalaaj gi ci digg rond Sandaga bi mbokk yi Forza bu Balla dina fa daje ak ki nga mooy Bébé ak bu écurie Tivaouane mbokk yi bisu la bu neexee Abdou Fall la banque agricole du Sénégal moom moo ko ci bis Agricash jàppale na bi Jojo Mobile seen autozone SDF ak soko su mbokk ñi ñooy sponsor yi jàppale Pa Abdou la 5 Pa Abdou Fall la mujj neex ji yaa sargal maam booy jaawo dootoo ko dolli de dana mel ni tukk sa bënn saañ ba réer foo sànni mbatt dana toj ndax ki nga sargal ak ñi nga boole ku leen boole ci bis def lu kenn mës ta def waaye di nga am lu kenn mës jërëjëf suñ mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay ji bi ñu amaan mbégte tey ñu teew fii ci écurie Fass ci écurie bu mag bi ci écurie bi nga xam ne mooy Fass Ndakaaru ñu jël si fi le ki ngeen xam ci làmb nga xam ne def na fi ay jaloore si biir làmb ba amateur yi nangul ko ak làmbam muy moo xam muy mbapat di lutte simple wala muy lutte avec frappe lépp bay na ci waaram macha allah li naan jaama pexem yàlla ak dogalam ba tey muy encadré li nga xamante mooy xale yi écurie yi ñoom Gris ñoom Lac Rose ñoom Forza Gris Bordeaux boo dee lim da jum la ko daggee ci troisième tigre de Fass ba ci booy bi ci gën ndaw kii mooy seen coach su ñu koy wax soose bu écurie Fass mu ànd ceeg liggéey bi ñoom père Ibrahima Mbaye ànd ceeg ñoom père Tafa Gueye ñoom père Serigne Ndiaye père Kati ñëpp partout dans le monde ñi nga xam ne ñoo nekk écurie Fass yëpp ñu ànd di liggéey liggéey bu am solo ñu leen di féliciter ci seen victoire bi ñu jógee seen diggante ak Abou Ndiassé tey ak Papa xam naa ne du ci nangoo développé nag mais dina ko may amateur yi ak Boy Niang Tapha Tine dañ koy nuy bàyyi ko mu nuyoog mbokk internet yi siiwul seen lamb TV ji bi ñu dugg si waxtaan wi maa lay siyaare Socé. maa ngi lay bëgg boor di la ziar di la jox sa wàccu waa yow it di ziar bont mondu lamb di ziar mbokk internet yëpp di ziar waa équipe de Fass Ndakaaru rawatina sama sama père Kati père Moustapha Gueye ak suñu président père Abass di leen ziar ñoom ñëpp di leen bëggee waaw jaajëf jaajëf waaw victoire moom waaw sant nañ si yàlla boor di ñaan yàlla tamit dimanche bi di ñëw encore yàlla may ñu ndam si kaw pakala waaw yàlla ñu jik tamit quoi macha allah dimanche bi di ñëw yéen a war a bëri ak ki nga xamante bi nii mooy pakala bu mbuur di forza ñoom ñaar nga xam ne combat bu neex la ñu bëri woon pakala am si ndam ndam si kawam combat bi di combat revanche waaye dañuy dugg ci Siteu ak Papa Sow le 5 décembre combat bi yaakaar naa ne yàgg na mais fi mu ne nii ñu ngi ci dernier réglage yi nan nga leen waaw combat maa ngi gis ñaari mbëri seen entraînement xool naa leen daal mais combat la boo xam ne si biir combat la bu nar a neex la combat bi a préparé bu doy waar la daal combat bu doy waar la combat ma nga xale la mais tamit combat la si biir combat yi <laughs> bi parce que Siteu xam nga ko ci làmb Papa Sow sa poulain la woon fii la nekkoon écurie fii mooy gétt gi yaakaar naa ne parcelle la mujjee mais fii mooy gétt gi yaakaar naa ne xam nga ay qualité ci moom xam nga ay qualité ci ki nga xam mooy Siteu combat bi dama bëgg a ñëw taxaw ci bëre bi kan moo ci ëpp avantage. non avantage moom ñoom ñaar yëpp ku ne am nga si avantage parce que boo xoolee Siteu xale la tam mu ngi si yoon te Papa Sow tam am def na fay jaloore yoo xamante ji munoo ko waxal munoo ko waxal lenn lu dul ndaanaan la waaw combat daal xam nga combat moom combat la rek da nga gis mag ak xale dinañ bëre mais par des fois mag dina juum loo xool te Papa Sow du mbër du Papa Sow gaa yi ko teg mag rek Papa Sow moom mii di wax yow maa ko mag maam ak papa fuuf papa xala si teel a bëre moo ko moo ko yóbbee gaynaan mag la yooyu mais Siteu bu mu jàppee Papa Sow mag yooyu du mag boo xam te waaw mun na mag Siteu daal mun na ko mag mais du magu ko ay 5 ans wala yooyu waaw combat la si biir combat yi ku ne da nga am lu nga ku ne da nga avantage si combat bi kii bëre mooy avantage am kii xëy na ñëw juumloo grand mooy avantage am Papa Sow si sama gis-gis man dafa ñëw war a ñëw bëre ak expérience am parce que am na expérience wooy si ay xeex ak warul nekk di xeex ak moom wala yooyu avantage mooy mu ñëw bëri expérience am am na expérience bu mu bëri Siteu parce que Papa Sow bëri naa ko ne si làmb xëy nag daam làmb bu boole muy zos mais moom tamit Siteu bu mu jàppee Papa Sow zos xëy na bokkuñu nu ñuy bëree ñoom ñaar Siteu xëy na Papa Sow day wàcc yooyu yëpp mu ngi ci a euh, asafurla kii euh, zos zos lu muy léewtoo ak Papa Sow lu léewtoo bokkut ñoom ñaar ku ne nga différence yu bëri waaw noonu la demee. macha allah mu mel ne avant première bi jàll nañu ci diggante Abou Ndiassé ak Pam Ndoye ban

non Papa Sow moom bu fekkee dafa dem di bëri sa lamb di am ay bu Siteu nekkee rek si si lamb moom war na mën tekkee nga mam sama gis-gis waaw Siteu bëri na ñu gën a garaaw Siteu fuuf xëy na moo tëridi rek Papa Sow lamb tëridi rek moo waral mu demee muy bëri Siteu sax wala am na ku moom la ma zos moo moo bokkul ki daa ñëw dóor waaw kii daa ñëw dóor kii mu daanu kii ñëw bëri kii daan ko si si bëri mooy malaala ba na Papa ku nekk da nga am kii dafa war a ñëw pour xeex Papa Sow pour jumloo ko mais Papa Sow war a bëri expérience am moom tamit ak expérience am pour daan booy du warul topp booy bi si ay booy yi jeunesse moom mag la comme comme ni ko gars di waxee dafa war a ñëw bëri xelam bëri sagom tamit quoi même si booy bee tamit dafa war a ñëw bëri xam ne mag lay bëral mag bu doy waar lay bëral waaw bu may noonu si tamit dama koy teeloo si làmb ji muy benn bet waaw teeloo dama koy teeloo pas mu ñëw bëgg dal si kaw waa ji maanaam ci teeloo bi ban maa nga koy demloo da nga koy teeloo avant combat bi pour rythme beeg xam nga tooñ beeg affaire yooyu wala si. su ma su ma la tey maanaam su ma la tey si combat bi du ñëw rek bëgg a wane affaire bu takk si kawam non non non tey maanaam lu muy def lépp lu mu def dafa war a wóor waaw warul ñëw di sorox sorox ay combat dafa war a ñëw dal même bu ñu ko naan waaj mag la waaw mag bu dem ba jël lekk sa avance am na argument yi wóor yu la yu lay daan kon yow yow mi xale bi xam ne yaa ne si yoon pour dem. yaa war a xool sa qualité ba nga war a bëre waa ji waaw. macha allah en tant boo xamante bi nii nangul nañ la sax làmb tey Siteu dafa war a xeex ak Papa Sow wala dafa war a bëre ak moom wala da war a xaar. non Siteu moom xale la war na ñëw mun na ñëw woo xam nga day ñëw dina ko maanaam làmb pièce la rek xam nga tey mbër bi mun lu muy wane entraînement ak li muy war a bëre jël làmb sa bokkul waaw noonu la demee Siteu mun na ñëw gëm na Papa na ne lii laay def fekk ne am na leen lu mu préparé dul loolu waaw noonu la demee làmb làmb moom plupart ak lu ñuy bëre bokkut Papa na nag xëy bi munu rëy si kanam bés bi mënul rëy rëy ba jaaxal ko ndax bëri nag daanaka bu ne si làmb moom moo am Siteu combat bi Siteu la gën a dansé rek Papa Sow si yoon pour dem Papa Sow bëri naa ku ne si làmb Papa moom moo am dansé bi si moom la ëppee moom moo war a ñëw am neneen lu mu indi loo xamante ne waaw expérience day ñëwee xool nu muy naxee waaja ba daan ko mais bu fekkee dafa bëgg a ñëw bëgg na day dal si kaw waaji rek mën na juum waaj na ko juum hmm, na xeex mën na xeex bu dee bëgg naa daal non xeex côté xeex bi moom daxul Papa xeex moom la wax man la boo xoolee combat bu mu jógee door waaj mu daanu bu waaj boo xoolee Papa Sow Papa Sow xeex dafa mën na xeex mën na bëre te garam fu muy nekk si kaw neexul door neexul nekkul mbër bi ngay bëgg a door bu ngay ñëw pour door ko nii da nga ko mën a nax pour door ko mais boo ñëwee pour dina da nga koy duma par force rek mën na la door ko xam ne salaam fa lay jaar yàqu war a bëri ak Siteu xeex wala mu ñëw indi sérénité maanaam dal wala dafa war a ñëw nax si te bëreeg moom nax dafay war moom laa la expérience moom moom expérience la war a bëreeg si ta ñëw woo ko si moom pour juumloo si ta pour dan ko jële ba xeex bu ko booy bu yow mu ko jële ba moom gis-gis pour man nit waru ko conseil li a bëri si ta moom lu mu si ta xam na ko moom a moom moom ma war a xam lu mu a moom am na argument yi wóor yu mu war a bëri si ta parce que bëre comme koo xam ne bëre na ak ñëpp kooku ku bëreeg Modou Lo bëreeg Balla la bëreeg Lac de Guiers 2 bëreeg Mbaye xam nga kooku mënoo ko wax si mënoo ko cité loo xam ne si kon mbër bi mënul garaaw si kanamam mënul mais xëy na làmb la ku ne mun daan sa morom mais dañuy wax dañuy waxee comme comme analyse rek mais Papa Sow warul nekk ku koy jaaxal si mbër làmb la nag mën na mën a bëri moom xelam xam ne tam làmb ji am na fu ko mën a yóbbu am na am na lu a macha allah séntu nga ci combat bu yàgg. non pour moom du weesu cinq minutes sincèrement. non arbitre bi par moom bu fekkee ñoom ñaar lu nekk ku ne li nga wax gëm nga ko. lamb ji du ñuy teel a ñibbi billaahi mais nag loo xam ne xëy na gëmu ko da lay waaw parce que loolu yëpp ay waxu signature la rek mais lu si ñëw ba si géew bi gars yi doon ne seen seen ku ne mën nañ la conseiller loo xamante ne ñëw taxaw di xaar mais bu fekkee ñoom ñaar lu ñu wax gëm nañ ko dëgg-dëgg lamb jooju du moo du weesu cinq minutes moom lu ne mu lam moom lu ne mun na see am lu ne mun na see am moom laa la Papa Sow il est danseur si xeex yor na droite boo xam ne moom ku ko si moytul bu la ko dóoree salaam mun naa yàqu moom moom laa lay wax droite boobu ko am moo war a xoolal bu baax ay argument a wax bi lii na expérience su bëri na bëri na na ku ne quoi xam nga ku bëre ku rek ku bëre ay ndaanaan kon bu bu ñu indilee benn booy boo xam te ne tey ndaanaan la sax du ma ndaanaan mais ñu ko gën a nekk ndaanaan la Papa Sow bëreel waaw. a dalle. mais non ça dépend si xeex xam xeex ku daa xeex rek ñoom ñaar ku si daa xeex mun naa jumal sama parce Papa Sow booy bi daa ko xeex de. déedéet bu dee dañuy ku daa xeex Papa Sow moo daa xeex si moo si te si na am na benn loxo am na loxo boo xam ne xale la loxo bu diis la waaw loolu moom nangul nañ ko ko na moytu Papa Sow moom mu dem jàppante ak Papa Sow parce que mooy avantage am ko mu taxaw di xeex ak Papa Sow. mu jàpp bi daal ci la prolonge. si parce que moom moo ëpp laf moom bu bëggee taxaw ne day duma Papa mun na la Papa Sow am na coup bu mu jël si Papa Sow lamam day yàqu lu leer laa la wax. expérience combat boobu daal combat esprit la quoi waaw calcul la naxante la si naxante la ñuy daanante quoi si man si xel moo xekk du ay fugg wala ay xataraayu déedéet combat ku ne na fu la mën a yóbbu ku nekk am na lu la mën a yàqal tamit. moo tax combat boobu ku nekk da nga war a demee sa xel xam nga teg argument yu wér pour waaw pour am pour am nga bëgg am. macha allah mu mel ne ñu ngi ci fin bi danga ñuy ñamal ci booy Niang ak Tapha Tine daanaka sax dañ laa fekk ci yoon parce que depuis boobu ba léegi xam naa ne lii moom ñun rek ñoo ko mën a am combat Boy Niang Tapha Tine combat bi euh, risque bi ci kan la. risque si ñoom ñaar ñëpp la combat boobu kay amul risque risque bi ñëpp la am moo la am risque ñaar ñëpp la am ko boo xoolee kii defar la jóge kii si victoire la jóge ba pare wëlbati ko jël xale boo xam ne mu ngi si yoon kon risque si ñoom ñaar ñëpp la ñoom ñaar ñëpp am ku si daanu tey rek yaa waaw moom làmb mun na boo ñaa sax xëy na xale la mu ngi si yoon mais Tapha Tine am na fu mu nekkoon par dafa arrière tuuti mais kon moom tamit war na bëri expérience am war a bëri dal waaw ñu bañ ko juumloo si yu bari kee tamit war na xam ne ndaanaan lay bëreel mbër la boo xamante ne mu ngi bëri mbër boo xam ne mbër bu doy waar la euh, booy ñaa Tapha Tine bu ñu ko gars yi minimiser man xam naa ko bu baax du mbër boo xam ne da nga war a di xëy na lamb moo doy waar rek mbër dina daanu yaakaar ne cuune la wala beneen non du cuune man saan naa ko mbapat fekke naa mu bëre xam naa ay qualité bu baax boo ñaa nag xëy na saan na ma mbapatam arène laa daje moom muy bëre nii rek mais Tapha Tine moom xam naa muñu nam bu baax xam naa ne mbër la mun na bëre mun na xeex boo ñaa nag moo soxla pour dem yegg si yeneen grand moom tamit war na bàyyi xelam bu baax a baax si lu muy def na moytu jaamaar loogu waa ji waaw moom tamit pièce la waa ji waa ji pour am lu su bëggee am dara si waa ji da koy pee du ñëw taxaw dëgal boppam non non bu dëgalee boppam rek mun naa am mun naa am lu ko métti si combat a gudd waaj moo ko sut te loxo Tapha Tine bu dalee rek waaw musiba am si biir jàppante bi sax loxo Tapha Tine la gën a garaaw boo xoolee ñu mu gaañ ñëpp si uppercut la leen gaañ da leen ko doon uppercut ñoom ñëpp avantage am la lama moo tëri rek bëri bi tamit bëri bu ñu yaakaar ne waaji moo dàq bëri Tapha bu yaakaar loolu mukk waxuma pour faral kenn faraluma kenn dama fekkee tafaatin mu mu bëri mbapat sama kanam moo koy saalum saalum ay Balla Gaye sama kanam ba taay képp ku la mënul bëri da nga ko da ko xamul waaw boo ñaata daanaa la war na ay preuve daan ay moromam daan ay grand frère mooy combat la boo xamante ne daal ku ne mën naa daan morom non nil mun nil yi taxaw combat yi am yëpp nil nil mun see am déedéet ñoom ñëpp a so déedéet mun see am mënul nekk waaw arrondissement mun see ñàkk mun na am mun na bañ am ma arrondissement bu ma amee bu sa amee bu bu mu bett kenn waaw waaw kaw ak lépp bu sa amee bu bu mu bett kenn waaw ñaari mbër yi mën a xeex la pare mun nañu bëre loolu la demee. maanaam ci wàccaay bi instant ni état de forme yi bi nga ko gisee kan nga kan ga gën a yaakaar. non boo ñaay gisuma ko carrément sincèrement gis naa ko mu jógee aéroport wàcc sol blouson mee gisuma ko nii comme nu ma gisee Tapha waaw nu ma wax si moom lu bari quoi mais Tapha gis naa ko xam naa ne moom waaw liggéey na trop. boo ñaa gisuma ko bon si fu muy liggéey so gis naa mu sol yëre di dox xam naa ne am na waaw am na maas am na dara mais aman nit tam noo ko jugé si loolu waaw mais kee dafa simee ko sama kana ma gis ko mu antana sama kanam ma gis ko ba fan yi rek maa ngi koy gis waaw waaw. ñoom ñaar tey jii instant nii bu fekk na dañoo xeex en distance wala ñu xeex jàppante kan la ci non xeex en distance bi ñu bëri ñu ngi juum tamit waa ji mu am na ay day xeex en distance. Tafa comme ni ko boo ñaa ñu defee ñoom ñaar ñoo niroo xeex. c'est que Boy Niang mooy bu muy jàng boxe xale la moo tax ñu mën a xeexam boobu di feeñ parce que xale bu muy xale la nekk centre Jacques di boxe xam nañ ne loolu si moom mooy loolu moom am xam nañ ko si moom tamit xeex jàppantam na Tapha Tine la gën a arrangé de parce que day corps du dóor Boy Niang di lay jam di déplacé wu waaw moom yooyu am na ko ak jëla jéem a nax Boy Niang day piège xëy na Tapha Tine tamit xëy na na jàngat si combat booy bi yoo xamante ne war na si mën a am yeneen affaire yi mu si mën a jëlee quoi question bi ñoom ñaar bu ñu wuree ci bëre nag. moom laa la wax ni bëre bi bu ñu yaakaar ne jégalu ma la Tapha Tine dafa mën a bëre sa mu ranta wax mu ne moo dàq bëre booy bi de dafa mën a bëre loolu a a mu taxaw sa loolu seen seen werante maal daan maal ka maal daan loolu loolu si dama fekkee naa yooyu ay saalum saalum ba dama fekkee atam Diouf mu bëree bu mën a ibamaar ay combat yu bëri daan mais xëy na la muy mu laal lamb des fois day am ay faxasal moom faxasal moo ko yóbbee li mu nekk si lamb ji nii mais bon yàlla xëy na nag na noonu la ko nammee ku nekk lu gën la la yàlla di def waaw. <laughs> lan ngay tàggoo ak lan ngay nuyoo yaakaar naa ne waa diaspora bi ban la njëkkee jël am na ñu bëree bëri ñu la juddoo nuyu naan daanaan bi fan la laaxatu lan nga leen di wax. waa diaspora maa leen di rek ku nekk fi nga ne ma leen ñaanal yàlla defal la jàmm defal la lépp lu nga bëgg rek yàlla defal la ko defal la sutur defal la xéewal di leen xam ne ñunoom ñu ngi fi saa yu Anta soxlaa rek si ëttu si si maanaam si si waxtaanu làmb wala wala analyse combat rek incha allah nañ leen defal lu kawe seen njot incha allah waa Fass maa ngi leen di ziar di leen bëgg di leen ñaanal ren ñu jël paie si làmb ji Fass Ndakaaru ñu jël paie Medina moom mënu ma leen fay quoi ndax fa laa yeewoo sax malgré de Fass laa juddoo Fass laa màggee Medina daanaka fa dafa mel ni ñoom ñoo bokk ndey ak baay mag waa Medina parce que ñu bëri ñaakaan dëkk mais malgré doomu Fass daal foofu dañu ma téye comme seen doom ñoom tamit waaw ma leen di ziar di leen béggee ñoom ñëpp yow it di la ziar bu baax xam ne borom baax nga yow sa caméraman bu baax bi jibi di ko ziar moom tamit bu baax a baax di ziar monde di leen jox dig le grand di ko jaajëfal di leen jox dig daje ba beneen yoon di ko remercier bu baax nag parce que yaakaar naa ne temps bi moom xatan na trop pour ñu jël ko mais wax dëgg yàlla yaakaar naa ne may nañu ko kon moom cant ak ngërëm ñeel na ko di ko jaajëfal bu baax a baax ji leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah saa bu ngeen ñu ko laajaatee rek dinañ ko waat incha allah jël si waat ko jërëjëf ji bi ba beneen yoon incha allah.